bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm président Macky Sall tëbal na maître Moussa Diop wàccee ko ci ndombal tànk yi mu ko dénkoon xalaat yi nag wuute na ci lu waral la ñu dàq ko bu ñenn ñi jàppee ne addu gu mu addu ci troisième mandat bi nga xamante ne moom la Macky Sall di bañ ko ko tudd moo ko waral ñeneen ña ca dese jàpp ne du dara dafa fekk rek mu waroon a dem wala liggéeyam ca biir Dakar dem dikk jeexoon na lu ci mënti ama liggéeykat yu Dakar dem dikk ñoom addu nañ ci mbir mi ñoom syndicaliste du Dakar dem dikk yi mbégte la ñu am ci jëlee gi ñu jëlee ki di maître Moussa Diop ca Dakar dem dikk waaye itam yemuñu ca ñoom la ñuy sàkk jamono ji mooy ñu def ab audit maanaam ñu saytu yorin ak doxalin ci wàllu koom-koom ci diir gi nga xamante ne nii maître Moussa Diop moo nekkoon njiitalu googule société na boo xamante ne société bi lee am na ko kii lee di maître Moussa Diop moom moo nekk ndayu mbill gi bu ñu sukkandikoo ci kàddu ba secrétaire général bu syndicat union démocratique Dakar dem dikk président Macky Sall dafa yéex dàq ki nga xamante mooy maître Moussa Diop mel na ni bi la yoon moom demub njaatige gi jooyloowul mbindaan ya na am sax ñoom mbégte lañ ci am ci diirub ñetti at diggante 2015 ak 2018 maître Moussa Diop jot na fi alal ju bari joo xamante nii waroon na mën a doy ngir soqali yëkkati ak naatal société bi di Dakar Dem Dikk waaye daanaka safaan ba moo xew ndax société de transport bi ba tey mi ngi ci ay jafe-jafe koom-koom yu tar moom directeur général Dakar Dem Dikk ba woon jot na fee jaay genn wàll ci seen dépôt bi ci lu tollook ñetti milliards ak juróom-ñetti fukki téeméeri millions jaay na fi itam ay commission yoo xamante ne l'état bu Sénégal moo ko ko jagleeloon milliards ci suñu xaalis waaye lii lépp ci alal la taxul dëgg-dëgg mu daal di faj jafe-jafe ya nekkoon ca biir Dakar dem dikk na am sax bu ñu sukkandikoo ci waa Dakar dem dikk tey la waalo gën a aay Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal